nga xamné dama koy fatali sama mbokk yi sénégalais yi nek ci biir réew mi ak ci bitim réew moy 1981 Abdou Diouf le président Abdou Diouf dafa ñëw Sénégal nek président gis ne kat setlu naa ne am ñu bari ñu ñu jox ay ndombo tank waye dal gis na né keesu réew mi ka réew mi dafa mel ni ñoom dañ ciy tib ci la créer woon li nga xamante mom moy la CREI la cour de répression de l'enrichissement illicite. may fàttali ne kon ñeent fukki at a ngi nii Sénégal a ngi xeex li nga xamante ni moom mooy jël gi ñuy jël alal ji nga xamante ni ñëpp ñëpp a ko bokk di ko jëfandikoo ñeent fukki at 40 ans ñoo ngi xeex xeex boo xamante ni ba tey sotteegul loolu mooy lan mooy loolu moo waral ñooñu di jël li nga xamante ni moomuñu ko alalu Sénégal moo waral jafe-jafe yi yëpp ñu am ko tey moo waral jafe-jafe yëpp yi nga xamante ni cité naa ko ci li nga xamante ni moo tax république république suñu ko waxee rek service publique moo tax service public de qualité saa bu ñu nee république service public de qualité moo tax service public de qualité mooy lan mooy nan la ñuy def ba ku feebar ci ñun mën a faju ca na mu gën a yelle te tey jii képp ku am as tuut boo feebaree doo dem ci hôpital public nan la ñuy def ci ñun service public mooy lan mooy nan la ñuy def ba transport képp koo xamante ni ak loo mën am war ngaa dem dikk ci condition yi gën mucc ayib fa nga war gagner en temps gagner en énergie gagner en confort ci ci sa loolu tamit gis nañ ne jafe-jafe li Sénégal jël alal ji nga ko ñu li ëpp am pour dem école loolu moo ñu la ñuy jànge li nga xamante ni moom mooy école mooy ay abri provisoire loolu moo waral tey ñu wane jamono bii yàggul dara fële ca Fambine ay xale yoo xamante ni dañuy xuus ci biir ndox saa bu ñu xëyee suba gu jot dañuy xuus ci biir ndox romb ak dex jaar ci biir ngir mën a dem jàngi seen école waa lii lañu seetlu lii seetlu ko rek moom moo tax tey ñu jóg dugg politique daal ne jàpp nañ ne lii mënatul wëy parce que drame social bi maanaam li muy jur ci musiba kenn xamul ni mu toll nit ñi sonn nañ am na tey fii may wax ak yéen am na loo xamante ni bu la dalee senegal ci feebar ak koo mën a doon ak alal joo mën a am da ngay loolu am na fii ci suñu réew fi mu ne am na loo xamante ni bu la dalee ci feebar tey je parle sous le des des des médecins su la dalee ak koo mën a doon ak loo mën a am dangay ngay faatu ci réew bi tey doo génn. mëno génn ci réew mi da ngay faatu parce que loolu mënuñu ko fay faj loolu moo tax tey bitim réew li muy am ci tourisme médical kenn xamul ni mu toll ñoo xamante ni dañ fiy jógee dem faju ji li ma wóor mooy ñooñu bu ñu sañoon du ñu fajoo fii fii la ñuy fajoo am na ci ñoo xam dañ fiy jóge tey du ñu def lu dul xam ne ñoo ngi tàggatoog seen njaboot pour faju ji waaye wóor na leen ne seen chance ngir ñu wér tuuti na waaye dinañ dem faju ji waaye ku sañoon kay booy wàcc liggéey sa dëkk ngay wàcc liggéey nous ci bari ci ñom faire des ne bu ñuy dem dañuy dee ñak dem ndax seen structure sanitaire donc loolu lañu japp né injustice gënu ko mag injustice bobu nak mom lañu xex ci opposition Sénégal jusqu'à la dernière énergie japp né képp ko yonga. lu ñu la dénk muy alalu Sénégal ngal la ñoo ngi lay ñaan nga yor ko dans les con dans les de l'art yor ko na mu gën a mucc ayib yor ko na mu gën a yelle sëriñ bi day wax ne li gën a am solo su ci dénkaane mooy sax bu ñu la dénkee lu jiitu ñu lay ñu lay wax nga leeral yow na nga jiitu leeral ba pare lañ la dénk muy la transparence li tax nag Sénégal bu 2023 am solo njuuj njaaj ak naka sul noonu dal na suñu or bi de kenn ci yéen mënuma wax oru Sénégal nan lañ koy utiliser tey kenn ci yéen mënumaa wax oru Sénégal lan lañ ci génne maa ngi fàttali jamono bu ne ne le premier lingot d'or Habib Thiam moo ko génne woon il était premier ministre yàlla na ko yàlla yërëm tey jii bijoutier yi Sénégal yëpp njaqare la ñu am ci ñàkk un comptoir boo xamante ni comptoir yi fi nekk yëpp ay comptoir étranger la amaguñ un comptoir national digne de buy mën a tax ñu mën a tey jii am or ci or bi lay tàmbalee or boobu bu ñu koy génnee fële ci Kédougou dafay àndaaleeg xaalis bii ñu defaree jaaro bi xaalis lay àndaaleel xaalis bi bu ñu jëlee or bi dañ koy yóbbu Suisse Suisse daal di koy jël traité ko ñu jël ñu jël xaalis bi or bi de gis nga or bi waxuma la xaalis bi ci bi ci bo àndaale muy alal ju bari ñu yóbbu ko Turquie suñu ko yóbboo turki bijoutier bi nekk fii ci senegal day jël avion fay billet dem fay otel en euh, ci Turquie jënd kilo kilo xaalis bi cinq cent vingt neuf mille francs CFA état du Sénégal toog di seetaan njabootam googu di daj loolu mënuñoo am comptoir national te ndeysaan fii lay jógee matière première bi tey jii boo demee Dubaay gële ci seen marché or bi waa Dubaay da jëppiwuñ ña leen jiite jigéenu Dubaay jëppiwuñ tamit ñële waaye tey jigéenu Sénégal mënuñoo takk or mënuñoo gis or léegi nag li gën a métti mooy demal kee dugg tey nga or ba di génne loo fa fekk ci jafe-jafe am na lu ko jéggi dayoo loo fa fekk ci jafe-jafe am na lu ko ëpp ci ñàkk ay hôpital diñ de ce nom ñàkk ay école diñ de ce nom waxuma la loolu waaye incidence sanitaire bi muy am maanaam jeexital bi exploité or bi di am ci li nga xamante ni moom mooy seen wér-gu-yaram nga jël phosphate bi la même chose tey jii phosphatu Sénégal anamu ban jeexital la am tey jii ci ci sunu ci sunu dundin nan la ñu dimbalee fa mu feeñ nan la dimbalee askan yi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk foofu

yaa ngi wut li nga xamante ni moom mooy baatu askan bi war ngaa sàmmonte bu baax baax ak këf kii muy big bii nga xamante ni moom ngay signé xam ne saa boo rek impliqué nga ay génération yu dul jeex li ngay signé yemul ci yow bu dee sa poste ngay signé yow ak ki nga xamante ni yaa tiim nit ñi yor sa pistolet di leen rey yéen a yem génocidaire nga soo ko yëgee ak soo ko yégul am na koo xamante ni ci bureau rek la toogoon ci ci dans les années quatre-vingt-dix ay licence de pêche yo xamanteni biñu chinois yi bëggé défaral suñu stade Léopold Sédar Senghor bi dix ans de licence de pêche lañu ko Chine jaayee fukki at yo xamanteni dañ na Chine sa gal yi nga am sa saxar yi nga am ci biir gi fu neex jaar leen les côtes les plus poissonneuses fi jën yi gën bari ci suñu géej gi ñu dilapider ko caxat-caxatee ko lolu mo waral tay doomu Sénégal yépp di di yalwaan ay licence ci yeneen réew yi

may gërëm ñi nga xamante ni yëpp ñooy yëngu ci wàllu environnement di ci góorgóorlu loolu yëpp nekk un désastre social boo xamante ni jàpp nañ ne lii feeñ ci rapport Cour de comptes bi di ñu fàttali ne xeex bi ngeen doon xeex ñeent fukki at a ngi nii jàngoro jaa ngi fi ba tey de te dafa mel ni moo ngi sax ba jànqar xam nga jànqar xaw ma ndax xam ngeen bëñ bu jànqar waaw jàngoro jaa ngi fi ba tey jógewu fi te ñooñu nga xamante ni dañ leen di wóolu dénk leen loolu moo ci gën a métti Voltaire dafay wax ne mu ne ñaari sàcc am mu ne sàcc ordinaire bi ak sàcc politique bi mu ne sàcc ordinaire bi moom moo lay tànn pour sàcc la moo lay choisir pour sàcc la mu ne waaye moom bu lay sàcc day ñëw gis la ne la sa téléphone bi dinaa ko sàcc moom moo la choisir pour sàcc la mais sàcc politique bi yow yaa ko tànn te mu ne li ci gën a métti mooy kooku du la sàcc téléphone de du la sàcc matériel mu ne moom day sàcc say rêve sa yaakaar day sàcc say gént day sàcc li nga xamante ni moo taxoon ngay ngay ngay dund ndax sax dina neewal dina tax kon lool mënuñu ko ci Sénégal ba ba tay tey ñu gis fo xamanteni dañ fay xeexe li ñun ñu jitu ci xex nous jitu len ci xex bobu donnu xex bobu di ko ndax ñun sunu que nous fañu soso, que xam lañ ñu nàmpal injustice ma ci delo njukkal bu wër ñi nga xamanteni ni yar ñi nga di len di len bayyi xel ci réew mi fi cheikh mohammedul muntaka tuduna cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul seydi haji malik tuduna Mam maam seydina limaamullahi Mam seydina isa lay tuduna kilifa diide yep mam ahmadou ndak sek mam tierno mam ahmadou njegen ñoñu nga xamanteni ni seen dund yep dañ ko xex injustice ñun ndono lol lañuy sauvegarder ndono lol ndono mak ñoñu dañ koy sam bu baax a baax donc tey amuñu fu ñuy jéggaani nu ñuy xeexee injustice parce que am nañ ñu ñu doy sëkk ñoo xamante ni ñoo ñu jàngal ni nga xamante ni noonu lañu ñu war a xeexee injustice naqarlu ko fexe ba li nga xamante ni ñëpp bokk nañ ko ñëpp mën cee jot. ba pare nag leneen li mooy wax naa ko dinaa ko waxaat sunu mbir ci xam-xam bu wóor lañ koy teg sunu mbir ci itte ju mag lañu koy teg volonté. li sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di wax ne xaw ma soxla doomaadama boo xamante ni ite xaj na ci kawam sunu mbir ci lan lañ koy teg ci teggin lañ koy teg si détermination lañ koy teg beneen bi mooy maa ngi koy wax keroog fii ci géejawaay ma ne leen politique ku ciy dugg da ngaa war a xool bu baax ndax yow mat nga wala matoo ndax yow euh, euh, euh, yar nañ la wala yaruñu la. ndax mënoo jóg ne da nga bëgg a solution safara pour nit ñi mais nek problème fu yow nga né da ngay politique nga né da nga am yité pour safara jangoro askan wi yow fu fekk kuy violence yow la fu fekk kuy saga yow la fu fekk kuy xaste yow la fu fekk kuy jël alalu jambour yow la mais kooku warul def politique kooku warul dugg politique koku dafa toll ci ñu yar ko mëno toll nak ci ñu ñu war la jangal nga dem di jangalé c'est pas possible lolu mo indi jafé jafé bi té loolu dina ci l'obligation que les formations politiques yi nga pour gëna tagat gëna yar ñi nga ñoy di ci ci politique ñu ñu bañ yar ci l'autre bañ nit ñu bañ yar ci bañ ko xalat ñu bañ yar ci wax safan, ñu bañ yar ci di ci di wax nakasul nonu kilifa yi ñu bañ yar ci worma ak xotti li nga xamanteni mom lañu am bokk ko muy réew mi nga xamanteni mënuñu ko séddoo réew mi amul titre foncier réew mi amul sens interdit kenn benn way politique amul fi titre foncier amul titre foncier sud amul titre foncier nord Ziguinchor du titre foncier benn way politique Podor ak Matam ak Bakel du titre foncier benn way politique Sénégal Sénégal démocratie bu am solo la. merci Sénégal démocratie bu ñuy doxal la pluralisme médiatique pluralisme politique lu mënta ñak ci réew mi borom xam-xam bi dafa wax ne donté li ngay wax d'accord ci dina xex ba nga mën ko wax donté li ngay wax waxon na ci ben ndaje ne ragaluma kuma wutel khalat li may ragal mooy ku ñàkk teggin ragal ku ma wuteel xalaat li may ragal mooy ku ñàkk teggin loolu rek lay ragal ku ñàkk teggin te su ma sañoon jeunesse sénégalaise yàlla xam na ne senegal ci yéen la yaakaar pour génn ci guuta bi te jeunesse boobu sonn na jeunesse boobu bakkanam daanu na ba tàyyi jeunesse boobu deretam tuuru na ba tàyyi ndaw ñooñu tey jii sam sen ngor ak sen sen dignité sen diine jaral na len lu ne jamono bu ci nek rek ñu fekk ben politicien bo xamanteni ñak solo lol di jël diko jëfëndiko lolou nak la Sénégal ngal la bu len nangu kenn instrumentaliser manipuler len ngal bu nangu parce que ku leen di jëfandikoo du ngeen ci gis rakkam du ngeen ci gis doomam du ngeen ci gis jarbaatam du ngeen ci gis jarbaatam du ngeen ci gis doomam du ngeen ci gis rakkam du ngeen ci gis ay soxnaam donc doomu jàmbur yi lañuy jël te Cheikh Mouhamadul Muntaxa dafa am lu mu waxoon dafa waxoon ne àdduna ak li ci biiram àdduna ak li ci biiram jiite ko

ñu fonk doomu aadama fonk àq ak yelleefu dooma aadama damay wax ne politique espace la boo xam dañ cee war a yëkkati ko kenn waru cee torox te léegi lan la ñu gis ci relation politique yi muy ñi jiite réew mi boo jiitee réew jàpp ne pouvoir bi nga am da nga cee war a noot askan bi jàpp ne da nga war a toroxal opposant bi jàpp ne da nga war a humilier opposant bi ñaata nit la ñu fi gis ñu humilier leen depuis 1960. defuñu dara lu dul wuute xalaat ak ki yor wala ñu ne ko ah ni nga yore baaxul de waaye keroog maa ngi koy fàttali te loolu mooy sama poñ bi nga xamante ni moom moo ci topp